Je sais que carrément fii ñu fi taxaw samay samay connaissances c'est tout le temps peuple sénégalais qui est ici j'ai décidé de ranger mon arme et de sympathiser avec eux parce que moi, que waral militaire utilise utiliser armam et parce que lu parce que sur le règlement de discipline générale ils nous disent que l'armée assure sa défense par la force des armes Pape Ousmane tey tey jii man militaire ma dajeeg sénégalais mu yor bant wala xeer di manifester ngir sa bonne cause ngir la libération du peuple sénégalais mu yor xeer yor lepp ma té sama arme bal yi nga xamantene ce sont des calibres de 5.56..! moy man nar ko utiliser fofu non où allait le Sénégal fan la Sénégal warona dem buñu utiliser won suñu arme pour assurer. est-ce que da ngeen nekkoon si